jaar sama gars yi ñu ngi leen di jaar bu baax a baax yéen ñi nga xam ne yéenay suivre Line Pro te nag dañu ñëw ak yéen ci benn benn tuto euh, mën koo jàppee formation parce que mën nañu vidéo bi mooy vidéo bi njëkk bi biñ ci def mooy li jëm ci li nga xam ne moom mooy Prism Live parce que Prism Live xaaral ñu wàññi suñ son bi tuuti parce que li muy daw lu mel dafa xaw a bari wàññi ko tuuti ok euh, parce que Prism daf mel ni li li li ñu koy li li ñu koy nit ñi di laaj bari na mu nekk application boo xam ne tey jii mën nga cee def montage ba pare filmer enregistré nii teg logo extra mu nekk application boo xam ne tamit mën nga ciy def live. waaw boo ci def live peut-être boo amee téléphone bu am qualité kenn mënul xam ba xam yow ordinateur wala vmix wala OBS ngay defee live comme yaa gaay rek yéen a yem te nag dañu ñëw def ci benn tuto avant tout nag da leen di ñaan dangay dem Play Store nga téléchargé ko moo nekk nii waaw buñ ko téléchargé ba pare nag di leen ñëw ak yéen ci biir prise bu live étape par étape wax leen prise bu live naka lay doxe ak option yi mu am yëpp ak naka nga koy utiliser. parce que am na ñoo xam ni surtout dan ma ciy demandé surtout ñi nga xam ne dañuy live match yi parce que nekk naa application boo xam ne dafa am yoo xam ne tamit ay techniques yoo xam ne yow yaa ko ciy defal sa bopp par exemple ñu bari dañ may demandé naka lay def ba am chronomètre bi xam nga lii Prism Live moo ko moo ko moo ko moo ko moo ko filmé match su njàmbur Kër Maajoor waaw naka la ñuy tegee chronomètre bi nii naka la ñuy tegee. tegee turu équipe bi teg tableau bi yëpp technique boobu yëpp dañ ciy fas yéene ñëw yow ci li nga xam ne moom mooy vidéo yi nga xam ne moom moo ci topp ñu ngi leen di ñaan nag ngeen suivre ko euh, te abonné te partager vidéo yi mu gën comme boo leen ko xoolee nii mi ngi nii waaw daanaka gars yi ñu ngi nii def échauffement ba tey Prism Live yaa ngi teg say lépp bloqué waaw dem démarré ko dara waaw lii ci biir Prism dañ siy ñëw ak yéen A bii nag mooy nekk première vidéo bi ñu ngi leen di ñaan képp ku bëgg a suivre formation bi nga télécharge reprise bi live xaar waaw comme ko comme ko ni ngeen koy gisee xam naa ne match bi dem na demoon ma ngi nii dem na 26 minutes ma ngi nii daw 0 ba tey yaa ngi teg sa logo logo Jacopos waaw ma ngi noonu après dinañ ci ñëw ak yéen incha allah bu buñ ko téléchargé pare xam naa vidéo bii di ñëw ci loolu la di ñëw a yéen kon gars lii moo nekkoon vidéo bi. di leen jaajëfal bu baax a baax a baax.